fan yii ñu toll nag ñoo ngi bëgg te bis ni ki tey jii ñoo ngi nag bis yoo xam ne nii moom la ñuy wax ay élection muy tànn ay ndawi réew tànn ndawi réew yooyu nag mooy li nga xam ne nii moom la ñuy bëgg a moom la ñuy bëgg a def ci tànn ndawi réew yooyu nag kani tànn ay ay ay jikkoom nañ ko xam na fa nekkal askan wa te bañ faa nekkal boppam képp koo xam ne nii boppam dong moo ko fa tax a nekk nga sànnil ko ko ba mu gañe lum am da yéen koy bokk lum am yéen a koy bokk lum def ci lu ñaaw ndax bu ñu demee ñëwatal luwaaya coow yi ngeen di dégg ci réew mi yëpp ci assemblée la la départ te loolu ci ñun lay départ kenn ku ne am na carte koo gis ne kii li muy woote nii dëppoo wut ak lislaam nga bàyyi te déefut bañ nit ngir sa bakkan déefut bëgg nit ngir diw déefut sopp nit ngir sa bakkan déefut tayal ci nit ngir diw nit ki boo koy bëgg da nga koy bëgg ngir yàlla soo koy bañ da nga koy bañ ngir yàlla bëgg sam réew am na solo waaye bëgg gi tamit nga xam ni nga koy bëggee waaye du nit lu ñëw rek bañ déedéet moo tax su ko defee damay faral di wax ne day ñun ñi nga xam ne ñëw féet ci wàll gii muy ñun doomi daara yi ñun lu ñu daal mën nañoo wax ne ñoo ko teg suñu bopp ndax dëkk bii day député boo xam ne nii su demee ca assemblée ba du wax qaala laahu buñ ne ko maa ismu ko du ko mën a tontu buñ ko fayee ci dékk bii ñun ñëpp suñu càggante la ndax xam na ne ñu mokkal alquran ak si am xam-xam mën a dooni député te buñ leen faree ñu dem ca assemblée ba danañ fa wax loo xam ne nii dana jëriñ diine dana jëriñ lislaam waaye ka jàng mbindam njargoñ ma jàng neen bu dikkee lu wax ñu gëm ko waaye ki juddoo ci dëkk bi ñu xam ko xam kim doon wax dëgg yàlla région de Diourbel bii moom ay député moom waroon nañoo doon député yi diine dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg wax dëgg yàlla ndax li fi sëriñ bi liggéey loolu jar toll nañ sunu boroom nag dañuy digal bu baax ñuy rafetal indi na aay yu bëri ci ne ñuy rafetal moo tax sunu borom day wax ne wala yuddihu ajra man ahsana amalan kenn koo xam ne nii day rafetal ay jëfam ci diggam ak bindéef yi diggam ak sunu borom ëllëg yowmal qiyaam sunu borom du ko fay lu gën amul moo tax day wax ci benn aaya li la si na ahsanul usna wa siyaada maanaam ñi nga xam ne dañuy rafetal aljanna lan leen di may ba noppi ndollent la ndollent loolu mooy gis yàlla ndollent loolu mooy gis yàlla maanaam aljanna li muy neex neex gis yàllaa ko dàq te kuy rafetal say wax ak say jëf danga gis yàlla te ñooñu seen xar-xanam duñ torox mu ne ñooñu ñooy waa aljanna delloo wax ci beneen aaya ne walillahi ma fi samawati ma fi lardi li yajziya lasina asaaw bi ma amiloo waaye wa yajziya lasina asano bil usna mu ne de sunu borom moo moom li asamaan juróom-ñaar yëpp moo li ci suufi juróom-ñaar yëpp waaye dana fay ñi nga xam ne dañuy ñaawal moo tax beneen beneen aaya dafa man amila saalihan fa li nafsihi borom tafsir kat ba firi ko ne man amila saalihan fa boppam waaye man fa waaye moom asa fa alayha ku ñaawal sa bopp nga ko def kon ku def lu baax sa bopp nga ko def ku def lu bon sa bopp nga ko def waaye la ca am solo mooy la tege ca walilaahi ma sara fira li sell sin asaaw bi ma amiloo mooy la ca tege mooy way sell sin asano bil usna danan fay ñi doon rafetal danan leen fay jëf ju rafet jibril ñëw ne ci yonente bi alayhi salaatu salaam ne ko dénk ma lan mooy rafetal damaa bëgg nga wax ma lan mooy rafetal hadis bu gudd la waaye jibril yonente bi daf ko tontu ne ki koy laaj moo gën a xam ki mu koy laaj waaye kii laaj daa bëgg jàngal mbooloo mi daan na ko rafetal de mooy nga jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi koy gis bu fekkee nekk ko yaa ngi koy gis moom yàlla mi ngi lay gis lépp looy def nga sédd ci yàlla sédd ci sunu borom tabaaraka wa taala moo tax dañuy wax ne koo xam ne jébbal na boppam yàlla woowu muhsin man aslama wajaaw kooku lii laay woowu muhsin fa law ajru inda rabbi kooku lan koy faye mooy wala xawfun alayhim wala hum yahzanuun loola nag lu mat a fépp la gën a am bindeef yépp ba ci rendi bii ñuy bëgg a rendi tey dañuy bëgg nga rafetal ko rafetal say wax bi ñuy julli si ñun na nga sol rafet ku am lu bees na ko sol rafetal say dëkkandoo say soxna say doom say mbokk sa lépp lu mën a doon nga rafetal seen seen diggante ndax yàlla kat wax na ne inna laa yuhibbul muhsiniina am na feneen fi muy wax ne wala siina jaahadoo fii naa la nahdiyanahum subulanaa wa inna la ma'al muhsiniina ñi nga xam ne dañuy jaat ci suñu yoon wii dana leen gindi teg leen ci yoon te yàlla ñuy rafetal rek la ànd ak ji euh, anas jëlee nañ ci moom addis bu gudd moom ñu tënku rek mu ne juróom-ñaar ñii ëllëg yowmal qiyaam day dana leen fay seeni jëf waaye ba ci gën a am solo mooy mu ne nit ki suufaatoo faatoo juróom-ñaar jëf yëpp dana ko fekk ci bàmmeelam mooy koo xam ne nii dafa xam woon ab xam-xam wala mu gas ak dex wala mu gas ab teen wala mu jëmba tàndarma wala mu tabax jàkk wala mu doon ab kaamil wala mu bàyyi fi doom jëm yaroon di rafetal jëm ci moom kon nag ñu bokk rafetal ki nag ñu xam ne jaamu yàlla la jaamu yàlla nag nañu ko yàlla diglee rek noonu lañ koy defee bàyyi ko kon nag wax nañ ci li am solo kon bëgg nañ ku dem nga ren dees ci jaay dara dees dees ñetti xaaj lañ koy xaaj benn bi mën nga koy joxe addiye addiye nag mooy jox ku la ëppale waaye addiye ñaareel bi nga sarax ko ñetteel bi nga lekk lii lañ ci digle sëriñ bi nag fi ñuy jeexale mooy dëkkam bii gis nañ ne fan yii xew-xew yi réen fii xew ba ci rey muy lu ñaaw buntu Pikine am na fi koñ buñ ko tudde am fuñ fi tudde buntu Sandaga am koñ buñ fi tudde Colobane te ñett yooyee jëmmi Colobane taxul ñu tudde ko Colobane jëmmi Pikine taxul boo demee ca Pikine fa ñuy wax buntu Pikine ay wéyoo fay daje ba kenn ni mu faa jaar guddi fa ñuy wax kolobaan fa tax ñuy tudd kolobaan ay wéyoo fay daje waaye kon kolobaan ga nit ñee jaaye ka dëkk ruq ba nit ñee daje ca kolobaan ñetti ruq yooyee suñ demee ba tuddi ko ci ba am ruq yu yu yu dippee foofa dë koñ dëkk bu sëñ Tuubaa dëkk ab koñ ne fa dippeewuñ ko Madinatul Munawwara dippeewuñ ko Makka duppeewuñ ko Taïf duppeewuñ ko Daaru Manaan duppeewuñ ko dara loolu di ko di di ko tuddee ay buntu Pikine boobaa nag ñun dénk dëkk bi nag am nañ ci am nañ ci responsable loolu moom nag ko ñëpp xam koy leer ñun dénk dëkk bi am nañ ci responsable bu mag te sëriñ bi dafa liggéeyoon xasida ak mat la bu faw seeni koo xam ne dañ ci andi ay bayt yu tënku rek yu fasanti ko moom dafa waxoon ne alhamdulilah karimu silminal ala si xaalim furodi bi sunal xasida ba mu waxee la mu cay wax tarjumaan bi ba mu jeex bayit moom ca njëkk def dafa ne maa ngi sant yàlla mi nga xam ne mooy borom tedd yi waaye moom mi nga xam ne moo ma soxlaaloo farata ak sunna kon dëkk bi lu fi waaye def lu dul farata ak sunna defoo ko dëkk bi defoo ko defoo li tax sañ dëkk bi borom sañc ko ca biir xasida googa ay waj al yu bëreeng fa waaye danañ ci tànn ay waj al benn benn ndax jataay bi waaye lam wax ci wàll ñi fi defi ñaaw téef waj al gëj a jiitu gëj a njëkk gëm njëkk a wax ci xasida gi daf ne ijaaban wa bay bay na naa wa bay na kulli asan wal takk fi anal xëy naa yow sunu borom maa ngi lay ñaan nga defal ma kiiraay goo xam ne nekk sama diggante ak diggante lépp luy lore lépp luy lore lépp luy lore moo xam sàcc agresseur rey nit lépp mën waaye maa ngi ñaan nga fegal ma fi ay coono wal takk fi naa anal xëy naa kenn ku ne xam ne ne dëkk bi ku fi ne sa jëf dundul fekk lor googu nag ba tey la ma waxoon rek day dellu fee ñi ñi jiitu dëkk bi ba tey am nañ ci wàll dellu wax ne waj al ilahi maskani Touba mis lasmia bi jaay xëyri manabat maa ngi ñaan sama dëkk bii di Touba nga defal ma ko mel ni turam woo ca Touba te Touba ak garab la gu nekk aljanna goo xam ne ku yàlla dogal nga du nga dugg ca ker ga duutoo du duutoo génn wax ci ci ci xasida googu ne képp koo xam ne maa ngi ñaan man sëñ Touba ku ma liggéeyal wala mu siyaare ma na ko jég na ko musal te jéggal ko mucc aljanna la nga koy def njéggal fii nga koy jëlee wa képp koo xam ne ni xaddama aw saara fa najjihi waxfir lahu aw saara ku ma liggéeyal wala mu siyaare ma na ko musal mucc aljanna la mooy dugg aljanna njéggal nag fii nga koy ak tàggu say bàkkaar waaye waxaat ci dëkk bi wal takk fi ni asa jami al alamin wal takk fi mu asa ya rabbi lori mboolem mbindee fi kon ku nekk ci koñ koo mën a doon tàmbalee lor nit ñi waa koñ bi yëpp ñoo war a mobiliser wu sama doomi xaritaak doomi imaam laak doomi sindaar laak doomi délégué de quartier laak doomi diw la moo di caaxaan ku nekku ci njub ñun ñëpp nan maas génn ko su fekkoon ne fun gisa ñaari gone wala ñett yu tàmbalee def naka su dundoon mu ñu àttan xeex wala nga àttan dem gendarmerie waaye fii daa mel ni yóbbu nit wala wax ak dara day mel ni loolu moom dafa haram léegi loolu moom bàyyi ko doom kooku mu yàqu yàquwaale say doom lu ko lu ko gën kon sëriñ bi dellu wax ne wal takk fi ni daxar asa saytaane dëkk bii di Tuubaa maa ngi ñaan nga fegal ma ci leeru saytaane ak kuréelu saytaane wa isbil baaxii na kuréelam bu beew bi ci dëkk yëpp ma sanc daaru muuti daaru salaam daaru xudus daaru daaru daaru fir awtaan daa ne maa ngi ñaan ci dëkk bii nga fegal ma bépp lépp lu fi rot si loo xam ne nii amul njëriñ nga soppi na wacc xakka fasrifu zirin béy bi ci nekk mën nañ koo leeral mu am solo lool waaye dañu sàmmanteeg jotaay bi mu del wax ne wal tasrifan na jumlatama yufsidu an maa ngi ñaan nga soppil ma ci dëkk bi lépp lu di yàq an yeddi loolu ñu na ci loxo yi waan loolu ñu na kenn ku ne sa kër ak sa kattan yeddi kattan gi nguur gi ak kilifa yeeg moom yi kenn ku ne yaa moom sa ñeenti bor borne lu fa def da neex loolu def na sariyaan lu gaaw sëriñ bi neen loolu lu ñuy gaaw ne ay suwaan fu mu fi gaare fu fi lu mu ñëwee sëriñ bi nee na loolu nañ ko jële waaye maa ngi ñaan nga musal ma ci ay jamono jii ak ay lu dul moom ak bépp fitna jinne dajaal nit ku ñuul penk ak sowu ak ku weex maa ngi ñaan nga musal ma daal na def daal di wax ci bopp wane boppam nag moom sëriñ bi ne man de man sëñ Tuubaa maa ngi ñaan wa al ayaati ibaadatan ta loo bu saaraatin tuqaddimul qadim maa ngi ñaan man suñ tubaa sama dund gii yow yàlla nga defal ma ko lépp di jaamu yàlla wajal ayaati ibadatan doo goo xam ne day ànd ak gi waaye maa ngi ñaan nga defal ma ma jiitu ci ñiy liggéeyal yonent bi alayhi salaatu salaam tuqaddimul qadim ak sukkandikoom ci yàlla daa wax ne anta wakii lii fa alayka takkil yow yàlla yaay sama sukkandikukaay ci yow dong laay sukkandiku waaye walaa yuddihu man alayka ya takkil yàlla boo sànq képp ku ànd ak man te sukkandiku ci diggam mag yonent bi mu ne lil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatuwul qaraahu wa inni ahmadu man de sama yéene mooy lépp loo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam defoon na ko man surtout waa ma ñëw beesal ko wane ko ne ko man mii maay ahmadu maay bamba jël ak dundam lépp jeexal ko ci yonent bi ne ko yaf nan la sii min umri xat baqiya fi sukkuri wal xidmati insa arabiya man yow yonent bi de sama dund jël naa ko jox la ko ba mu jeex tàkk ci sant la ak di la loolu doyut mu wax ko yonent bi ne ko wasilati yaay sama wasila yaay sama càkkutéef yaay sama mébét yaay sama pak yaay sama aljanna yaay sama li ma ma soxla lépp ci yow laa ko kii nii la def yonent bi nii la def yàlla nii la def dëkkam bi kon ki fu nekk ci leneen wala nga defi def leneen war ngaa xoolaat sa bopp baax kon élection yi di tàmbali ñoo ngi leen di dénk gone yi kenn jërut mu di ci rey boppam ab politique seen jëru ndax Sëñ Tuubaa waxoon na ci ci ak politique nee na ñett baa gi mooy bahidun min allaahi laam gi lehnatun min allaahi taam gi taa gi taariku salaati keef gi kufrun baa gi mooy bahidun min allaahi mooy sori yàlla rek la lay jural laam gi lehnatullaahi rëbbam yàlla la lay taa gi taariku salaati rek la lay jural kaw kaaf gi kufrun kon nag ñu góor góorgóorlu ñoo ngi sant ñëpp